mais Adama hmm. instant bi nan nga gisee làmb ndax ñu bari ñu ngi naan làmb dox na làmb doxul mais yow nan nga gisee làmb instant bi làmb moom boo ko xoolee làmb sampu la dox instant bi doxul ah man sponsor yee daw dañoo daw bàyyi làmb ji loolu la làmb sax gisuma ne dax def na lox parce que football bi boo ko seetaane histoire bi fa lay uppee mais làmb moom dafa bari coow bu defee tuuti rek coow ko gis nga lu xew keroog diggante Aliou Seydou ak loolu sax dama ko ñaawlu. parce que amaana nag gis nga man man ni nga gis nii. ci ci ci ci télé laay wax bu may ànd ak yow nga nekk dootuma ànd ak yow barke alxuraanu karim amoon na sax benn doom bayan boo xam ne daal sengoon police la bu ñëwoon làmbu ja nii bu ñëwee amul lu attal nit yoo wax ci man ku wax ci man rek ma histoire ak yow dama ko doon jox paas ba mu boole ba Adama daal bëggoon mbokk boo ñëwee daf lay jox paas yi dagal bi ne ko non non non non man moom booy ànd ak histoire du ma ci nekk man man may dugg ci biir géej bi bàyyi ma reyante lu ma mën mais ànd man di ma histoire di ma yàqal du ma ko def kenn mosuma poñaar biit mosuma saage kenn man amaana bu ma ñàkkee nga xam ne am na noo xam ne parce que léegi sax bu arbitre bu la ñàkk loolu sax dafa recours rek dem naa Kaolack da coow bi nekkul ma daal ma rek canum laa ne bindal ma recours mu bindal ma déposé jotaat su ma ko su ma kii waaw loolu mooy àdduna mais nag fii di xiir du nga yoo booy ànd nit da ngay ànd ñoo xam ne ñu jub lañu bu la kenn yab nag gaaw a dóor baaxul ci dara ci jabar sax gaaw a dóor baaxul nga wax am noo waxee sax nit ku am jom boo waxee moom mu mais fii da ngay toog fii gars yi lamb ji loolu moo tax lamb ji doxatul sport yooyu dañoo daw te nag boo buggee dëgg nag kese bu gars yi bugg ñu bugg ñu fay mbor yi mooy mérite na la ëpp loolu mbor mooy sumeeku des kalisoo kese léppam di feeñ muy foggante ay arrêt doomam toog gis ñuy foggu baayam ay arrêt bu mu ne ñan loo jëru million jër na ko mais nag eh, lamb ji mënuma combattre dafa yàqu jamono yi passé nii boo ko xoolee combat dóor yi xoola heure bi na fekk combat sokk yi taxaw mais combat yi mënu taxaw Nick Nicolas yal na ko yàlla génnee fu mu jóg xaw ma lu xew laaj ma lu xew nit ku ne day juum nañ ko jéegal mu ñëwaat parce que mu doon soxale lamb ji ak ñeneen ak ñeneen Modou Lo amaa nekkoon na combat boo xam ne combat bu ñëpp doon xaar la combat bu neexoon la mais gis nga kalewu na nañu waxtaan di jéegal di jëlale ku du juum moom amul fii moom ku du amul. mais arbitre ak waa CNG kenn du ko nettali gis nga léegi guerre bi am si ñoom ñoom arbitre yi ñoom dañuy kaas assurance ak li leen di fay ñu gis ni Sitor dañ koo dàq à vie Malick Ngom 5 ans Babacar 5 ans loolu yow ban jàngat nga ci am loolu rafetlu nga ko wala. non ñooñu seen diggante yooyu guerre xeju géer xaju fa ndax gis naa ne dañoo waxtaanul rek ndax man ma yaakaar ne seen waxtaan bu ñu waxtaanul waxtaan xam nga waxtaan day am xuloo am waxtaan boo buggee mu rafet day am xuloo ngeen ngaayante mais après di ngeen xam dëgg bu fu mu feete ngeen am lu ngeen doxal sa jabar mi nga yor ci ker sax boo ko yoree sax mënoo ko defal lépp mais amaana nag xëy na man xaw ma sax lu xew dañu wax rek ku ne defa wax CNC dëgg ma mu wax du dëgg mais tey sa jabar boo ko yoroon ci ker sax mu am lu bari loo xam dañ ko ko dig si suma ñaaw njort boo ko mu defal lépp am loo ci def mu toog muñ ci lu ma yaakaar ñoom ñooñu lu ñaaw xajul seen diggante parce que CNG liggéey na ci lambu ji loo gis ne CNG moo tax mbor perteetul da nga doon tëgg fii adressé ngor fii fekke nañ ko fi dem bay lambu ji ba ngeen dugg ci biir géew bu ne ko la ma tegoon mënatuma ko awma ay nit coppati tegal leen ngeen dem bëre dem ñibbi CNG moo ko fi dindi. liggéey bu bëri ma nuyu papa suma papa Aliou Sarr mais ñoom dañu war a waxtaan rafetoo gis nga ni ñuy wax ne dakk nañoo nu mu tudd si toor parce que gaw man sax loolu mën na nekk daq ndax même sa xarit mënoo di ànd ak moom suba ak ngoon ba bëccëg nga ne diwa baax honoré ko takkal ko ay affaire borsit nga ne kii moo fi gën a bon yooyu moom saa waay man de ba yaakaar ni sax loolu mën ta nekk amaana bu ñu te woon te Matar ba mu ngi liggéey liggéey bu rëy ci réew mi Matar ba na ci dugal loxoom xam naa ko sama xarit la bu ma gisee ma ko gisee gis rek yagul ministère laa demoon nit ku liggéey la koo xam ne nag ci sport liggéey na liggéey bu dee boo xam ne amaana wax ma ne ministre sport mos na ko liggéey mais jafe na ay njabootam la ñoom mënu sportif lañ te moo leen jiite na leen woo ñoom yëpp déglu leen ut solution ñoo diwaat ñu fi nekkoon ndax nag doo formé ñi nga xam ne dañ naan ba ne au top doog a uti nag ñu ot xam ne da leen doog a takkataat loolu nag dama yaakaar ne mënu nekk nañu waxtaan ker day am waxtaan amaana bu ñu nekkoon ne toog nañu waxtaan lu ñu wax yëpp xam nga di nga yow yaa lim yaa ne assurance ak yeneen ak yeneen amaana am na loo xam ne buñ ko ci defaloon man déglu naa waxu arbitre yi dégg naa seen wax amaana am na loo xam ne buñ ko ci defaloon ñu bàyyi yeneen yi nag kon liggéey ba jëmi jamono ñu doog a defaat leneen mais bu fekkente ne ci seen wax nag laa dégg parce que ñee dégguma lu ñu wax bu fekkente ne lépp lu ñu wax. dañ ko waxoon buñ jëkk-jëkk ne nag loolu mënatuñ ko def aussi ay xel la ñu rek mën nañoo siisu nit ci li ngay siisoo rek nga juum ci li ngay siisoo rek nga juum. ñu ne Alioune Sarr instant bi 109 lañ soxla tet yu euh, bopp yu bees kanam yu bees gars yi ne Alioune Sarr instant bi 25 ans de pouvoir doy na yow d' accord nga ci loolu wala d' nga ne man am na côté yoo xam ne am mu toog dafa bari Sénégal gis nga CNC bu ma nekkoon man wax dëgg duma ko jox mbor parce que jox ko Adama juuf nag waa ECRIM bu ñu ñëwee mu am na mu doxale ànduma ci loolu nañ ko jox nit ku am xam-xam nit ku jub koo xam ne jàng na am na xam-xam comme Aliou Sarr mu amee xam-xam te mën na doxal ñooñu bari nañ ci dëkk bi. réew mi non non man sax euh, xam nga Aliou Sarr bu ngeen ko waxee dina dem dina dem ngeen ko wax du dem dina dem. nguuru yàlla rek moo dul jeex mais xam nga lan lay bañ nga bugg a xëy teg ne ko na fi jóge na puus ma toog te bu toogee nag sawaay doo ko mën a doxalee ni nga xam ne noonu nañ ko aseen bi soxle loolu daf fi am am na ñu bëri ñu ngi wax di dañoo bëgg mu jóg rek mu toog fa te est-ce que bu fa toogee lu Aliou Sarr def nañ def lu toll noonu nañu toog waxtaan Sénégal dafa laaj waxtaan nañu toog waxtaan bu baax gis nga Aliou Sarr bu ñu waxee na dem dina dem bu ñu waxoon dem du dem dina dem fii moom nguur yàlla rek a jeex. mais amaana nag war nañ ko tañax tañaxee nag ñoo xam ne menam dañ ko wax ne jóge fi teg fi ñoo xam ne nag ni aadama lañ mel duñ doxal dara lu jub bu ko defee lamb ji gën a te gars yi nag loolu def ci bari ci ñoom am na ñoo ba am na ñu ngi coow rek di wax wallaahi boo leen ko joxete seen intérêt personnel rek moo tax ñu ne man d'accord ma loolu. d'accord man nekk fi nekk fi nag lu yàgg sax loolu yëpp waxuma ne sax waru fee mën a ñàkk nekk parce que amaana lamb ji mu ngi avancé. lamb nag yegg na ci am coow ah nañu am coow mais bu fekkee ñoom dañuy bëgg ñu changé ko nañu indi le congrès mais puusal ma toog moom daf fi bëri de yow xam nga li ma wax bu baax yaa ma ko gën a xam gars yi ñu bëri ñu ngi coow boo leen ko joxee tey duñ doxal dara coow bi sax ci lay gën a bare nañ ko jox koo xam ne ku am xam-xam na xam nga ma Sarr mosul bëre mosul nga mosuma dégg mu di wax histoire boobu de dafa jàng am xam-xam ñëw taxawal yor ko bi fu mu toll nii yooyu d'accord ma ci nag. nañu waxtaan jox ko koo xam ne ku jub lañu te amaa nañ gis nga li nga wax ni buñ toogee ak ministre billaahi affaire bi dina saafar ñoom Sitor parce que ñoom Sitor nag liggéey nañ ci arbitre yoo xam ne wax dëgg mérité wuñu dàq nag mérité wuñ ko de nañu toog waxtaan u am lu ñu def am lu ñu ba xam nga laaj mbiri mbir <laughs> laaj mbiri mbir de yaa ko wax de dañoo bari loo xam dañ ko teg pour laaj ko wax naa si jabar bi nga xam ne da nga ko yore sax mënoo ko mottali lépp damaa soxla oto bëgg naa bon bëgg naa nangam ak nangam den ko naan lii laa mën a def mais bu ko rek du ci def dara ah ya sawaay booba nag sawaay même bu mu la lu la nopp nopp la sawaay say boobu nag moo tax jeex da nga ne am na loo da looy def bu soxlaa soofu naftar comme ni nga def nga ne ko noonu mënuma def soofu naftar lii lay def bàyyi mu am loo def nag nangu toog muñ am lu mu yaakaar mais boo ne nag la ma waxoon du ma ci def dara nag te nga yàgg di ko ko doon waxee man nag CNG déglu mu dégg ma mu wax de mais ci arbitre lu ñu wax nag moo tax may waxee nii bu fekkee wax nag wax naa ñoo xam ne dama du noonu du ko juum amul mais ay dàq moom ay rajo moom xaaruma ko ci rafetlu ma ko wax dëgg toog waxtaan am lu ñu def am lu ñu ba doxal loolu laa loolu laa loolu laa gam ah, ci suma xel nag laay waxee. ak ni ma toll. am na solo ndax li nga wax dëgg yàlla li nga wax moom leer na te neex naa dégg Adama benn bi mooy tey mbëru VIP yi su ma nee laa Balla Gaye ne la Eumeu Sène Lac de Guiers 2 Tapha Tine kañ nga ciy jël kan laa ci jël comme koo si jël tey su ma la xoon ñoom ñooñu noonu Adama Diouf tey su ma la doon wax bëre ma lima ci a a kam kan moo dàq bëre waaw ci kan la gën a feeñee xam nga bëre nekkul benn feem rek ñoom yëpp a mën a bëre ñoom yëpp a xam nga ñoom bo ñi nga lim yëpp dañuy daanante rek kee moon kee kale moon kale mhm. <laughs> loolu bëgg a wax uppantaw ñu doole noonu non ah. amu ci meilleur. non meilleur sax gisuma ko ci xam nga tax ko ci. wax naa dañuy daanante. yow yaa ngi nii Balla Gaye boo ko joxee Amar Sène Amar Sène ko ñaari yoon. Amar Sène Modou Lo daanu ko ñaari yoon. Balla Gaye daanu Modou Lo ñaari yoon. loolu moo ci am dañuy daanante rek bu la kenn sonal kii nii dafa amoon ratu amoon tànka. kii bu la ne ceex lamb ji jeex. kenn moo mën rasu ñoom yëpp sax ñoom xam nga mor am na mor. rasu kat ba Lac de la. Ah. waaw moom lañ ko dekkale rek. <laughs> mais nekkul moom kese moo mën rasu. mais xam nga mor sax day mën rasu. mbor hmm. bu mënul rasu du bëre de. mbor boo xam ne sax bu gën a ceex am fu mu rek du ci mel ni Adam bu la ne ceex rek nga ut foo teg sa loxo tëdd. Hmm. yooyu du mbor. mbor de am yenu nga tëgg mboot ngeen repeelu gars yi repp nañu njaax la war du njaax ngeen dooran tànk jargandalu mais mbor boo xam ne am na foo koy egg rek mu ut fu muy tëdd déedéet loolu du mbor nag mbor dañ koy egg ba gars ne xam nga bu mu rek ama euh, dégg nga Birame Ndiaye nag loolu daanu ko de loolu daan moot loo de wet la ba ñu génn ci ñaata yoon lañ songante noonu gars noonu la ñu mel waaw ñoom ñaar yëpp daal am dina am lu ñu uppanti tuuti nag mais pour nga tànn ko nag day jafe. kan moo ci kan na ci gën a bëre gën a feeñ. si ñoom ñoom mën nañu bëre dégg li ma la wax. Fatima bu may jaxase rek aduna. ok jaxase wu ma la dañuy eh, waxtaan rek jaxase rek yoo xam ne ñoo ñëpp. lamb la ñoo ñëpp ku ne ku ne nekkul ku ne nekkul kii roi ah. moo ci dàq bare. dégg nga man ah, ma eh, droit laaj la maa am droit laaj la ah, Adama Diouf mais ma tontu naa la mais. tontu naa la mais. dama la tontu ba topp ma rek di ma puus nag nit nag boo ko puusee day sës yow ko ci dàq bare. <coughs> Euh, Adama. sama Adama sama cameraman mi ngi may signal li nga xam te heure bi mais Adama ñëpp xam nañ da ngay wax ci actualité ndax wax dëgg yàlla nee naa la sànq de lantam maa ngi koy wax mbirum góor jigéen bi dañ ci defoon benn sortie comprendre ñu ne Adama Diouf li mu wax parce que yow da ngay lancer chaque jour ay message donte gars yi ñu ngi ne mais tey mbirum coronavirus bi nan nga ko gisee ak tamit lan ngay wax ñi nga xam te ne internet yi leen seetaan ndax bu coronavirus bi dafa am ay li nga te ne moom préparation mais Adama Diouf tey lan lay wax ci coronavirus bi. lu ma ci wax daal mooy moo di ne yal nañ ci yàlla musal yàlla ak dogal jàmm bi ak wax yàlla moo ko wàcce fii rek wax naa la sànq sax xëy na sa waxtaan dafa dem naa ba sawar mais dëkk bi fu mu ñëpp a tiit ñëpp ñoo tiit parce que dafa nekk loo xam ne amaana sax yéen ñii sax yéen a ngi ciy wax rek mais na ngeen ci waxee aussi dinaa leen ñaax na ngeen ci waxee noo am ne noonu la amee. Ah. parce que parfois da ngay gis koo xam ne si bureau ko jotee coronavirus la ko jàpp. jabaram dootu ne waaye doom dootu ne nañ bàyyi loolu. yooyu daf fi am de am na yoo xam ne day jékki-jékki rek. Ah. doo mën a xam. léegi ku bu am métti sax gars di ko moytu. yooyu du noonu saa bi coronavirus amul gars yi seen bopp yi daan woon métti. Ah. wóccu daan woon am. Hmm. gars yi nañ jàpp yàlla mais ku sëqat rek mais léegi ku sëqat rek boo sëqatee sax gars yi la. sànq fu may doon tekkee am na ko tisool le gars yi ba xoolante mais ji yàlla ay lii fu ñu jëm <laughs> allahu akbar léegi kees waay booy tisool xamal nooy defee de man ma bëggee saa bopp dama ko ñuux suma diggi tànkaay soo bëggee <laughs> ka man barke démb laa dem kar démb laa dem kar Adama Ndour ci buntu bala avec dama def rek acca daal di raxalu <laughs> duñu daan gis dañu daan akalante nuyute doom yi sax nuyu ma la eh amul nuyoo de eh xam nga ñee nuyu ma la nañ ko defee noonu rek nuyoo amatul nuyoo amatul di fooy nuyoo jëm. ngeen sama bu méttee si suuf tànk yi ngeen. <laughs> Ah. <laughs> lay def damay toog wóorul léegi ku bëgg bu am ci rek mooy loolu. ñaan yàlla rek yàlla def ci ndox bu sedd mag yu baax yi nañ ñaan. Ah. bu leen xeeb leen hmm. même si suñ maam yi dëkk siin sax am na ñaan yu ñu daan def hmm. nañ ci dellu cosaan hmm. dem ñaan gars yi julli ñaan ku julli nga ñaanal sa boobu ñaanal keneen te nag wax dëgg fayal rek sant nañ yàlla bu baax ndax boo ko xoolee. du keneen sax xese keeso ñaal boo ko xoolee nit ñuuli wax nañ nag nu mu def ak nit ñuul nag macha allah gars yi nag nañu moytu bu baax a baax nañu moytu moytu mooñ ci mën a génne mooy lu ñu wax nga jëfe ko mais ñu wax lii nga lii lay defee boo ko xoolee yeneen pays yi nga xam ne yëpp affaire def leen sonal dañ ko soofantaloon maanaam affaire bi ñëw rek nga ne ak ah ko garaawul mais gis nga gars yi jël nañu motuwaay ñu ngi tëj ay yeneen bare te yenn affaire nag dina métti loolu Sénégal ndax suma classe yi nga xam dañuy dem xaramat bu bare doog a am dépense mm. boo ko bëgg wax noo liggéey te yorewul dara mën a dugg ci ci banque bi retiré xaalis ndax day dem lijjant ji bi am benn 5000 jox jabar ji saa waay bu ko waxee te du bëggoon nag nu muy def. du ko def ñoo jàkka tey sax xam nga jàkka mu julli moom gars yi sax waxuñu sax ñu terew ñu julli dañ ne ku fi nga nekkee nga julli fa ñaan gisuma ñi sax tere nit la mais amaana sax xam nga ni Sénégal dafa dëgër gis nga bu ñu waxee nañ jule nañ nañ taxawee ne nañ defee ne gars yi duñ ko def. dañu ñëw bu ñu ñëw sax amaana sax loxo yi dañ ko taamu dañ dem dawale imaam ba bu dawul sax ñu jox ko loxo. kon ni joxe loxo ngay joxe loxo lañ tere di dañ ko dañ ko tere akolaat bi dañ ko tere. jox naa loxo yow. jox jox naa juufa ñoo ko ma jox naa ko loxo. Ah. ma kenn loxo kan lay jox loxo. ak waay ku joxewul loxo akolaat fu muy amee. sa waay gars yi sax léegi seen jabar yi akolaatuñu booy wàccee nii ah. kenn akolaatuñu kenn de ga buñ kenn akolaat jabaram nag lañ bàyyi parce que comme dañ ko tere moom di jaay naan sama jabar sa jabar yendu foo wul ah. yooyu amatul léegi laxax-lax bi nañ ko ba ah, laxax-lax ko moom teggeeku na <laughs> buñ ko mënee sa waay mbaj yi nañ ko ñaari mbaj bu affaire yi passé nag yomb naa ah, lagaam bi nañ ko baax nañ ba loolu nañ bàyyi la nañ bàyyi nañ tëddee na le buñ ko mënee daal sa wax a sa waay nañ ko muñ wéeru koor a gën a métti joono moo ñu jàpp léegi affaire bi dafa métti taxi maa ni taxi boo jël day jooy de dañu jooy fii dara doxatul foo doon lijjante junni 1000 francs ngay lijjante ci wet gi mu tee. léegi ñam coro nag. ñam coro. coro lan xanaa yow sa muy waxee akulaat ka nañ bàyyi coro yi nag gars yi nañ takk nag ci xale yi xale yi tooy nañ trop nañ bàyyi takki nañ takki nag. mais moom. Euh, ah takk daal gars yi wax nañ gars yi xam nga dañuy waxee xel gars yi wax nañ ne takk yi ak dajaloo yëpp nañ ko ba sa waay kuñ ci diggoon takk weer bi mu ñal pour gis ne dañ laa bëgg a njooy nañ muñ nag saawaay ndax takko bu bees nag laat war na cee mën a am te dañ ko tere nañ muñ bi ak affaire bi jeex ak yam ñu doog a takkante <laughs> mais fu mu nekk nii di <laughs> coronavirus bi ah saawaay takko bu bees nag akolaat def ci am solo nañ wax dëgg rek nañ bàyyi tàgg bi ba ci kanam ñu doog a tàgg ne ma yàlla baal nag waxe kaa ko nii bu fekkee am na ñu mu daal rek ñu baal ma. mais Adama. Ah. benn mooy macha allah instant bi moom da nga xam nga gën kii Adama hmm, sa relation ak xale jigéen nag. xale jigéen samay xarit lañu man li ma am ci xarit jigéen ay xarit junni nit lañu waaw. lu ma leen xalaat rek kii lan man sa man gars yi dégg naa gars yi may labat man labatuma kenn déw ma labat lu may labat yem. xale yi ma bokkal seen bopp mais nag saa waay nekk fépp lu ne nga doon jar yi rek a ko mën lu lu loo yëpp nga ne yaa ko yow rek yaa koy lekk sama diggante kel gars yi dañu xëy te doo xëy da ngay jël loo tolloo rek bàyyi gars yi jël loo tolloo loolu moom saa waay mënta nekk te toog bu gën a neex sax am na ko ko dul lekk laax xam nga ne am na koo xam ne boo ko joxee laax rek biir bi daw am na koo xam ne du lekk ceebu jën am na ko dul lekk yàpp bay am na ko ko dul lekk boo xamee noonu mbir bi da nga jël lu yem bàyyi sa morom ñu jël parce que lépp nag mënoo ko jeexal da ngay jël lu yem rek imale sa biir waaw sa bëgg-bëgg yëpp ku sañoon ku sañoon boo xëyee da nga am 4-4 am kër gu am kilim am lépp mais nag bu fekkente nag yemale woon nag da ngay dugg ci tuuxu duna nag da ngay gis ku yor 4-4 yor ay million am yow defal loo rek ngay sa ci boo sa ci njàpp nag léegi looy wax ñàkk dignité man fu ma neex dox de yàgg naa fi de rafaat bi yàgg naa fi dox fu ma neex dox talal sumay loxo waaw ah man du ma am ñaar du ma am ñaar sax man may am ñett bi ñeenti benn jabar ci xale yi ñu tooyee nii. actualité bi instant bii nii rey bi bari na mais xale yu ndaw yi instant yi ñuy enceinte yi ñuy am kii waxal mu leer. xale yu ndaw yi ñuy enceinte. maanaam xale yi nga xam ne di biiral. Hmm. ah bi naa mi na saytaan daj yi mi baaxul mais xale yu ndaw yi kenn biiral leen ñooy biiral seen bopp. ba gi. waaye bàyyi yooyu xale yu ndaw yi kenn biiral la ñooy biiral seen bopp yoo xam nga li wax bu baax moo xale yu ndaw kay ci tànkaayam la doon toog mais xale yi yéen xale yu góor yi ci biir nekk xale bu góor boo xam ne saa waay na ma yàlla baal bu mu gisee gis jigéen nga ne faax ne gam sa waay bu biiree kooku biiral morom <laughs> yaa biiral sa bopp kenn biir gis nga si gis ngeen ma nekkoon justice fii barke la yi yu jigéen bari dinaa leen dinaa leen wuli wuli yoo xam ne amul fen parce que ñoom ñooy dem ci xale yu góor yi bu ñu biiral leen ñëw naan ñoo ma biiral fekk biiraluñu leen barke yàlla xale yu jigéen yi xale yu jigéen ñoo ñooy biiral xale yu góor yi wax waay saa waay du ma jëm xam nga li may wax bu baax xale xëy saa waay boo yoroon doom bu jigéen am ponkal bu toll ni aadama ñëw seet ci côté du toog ak moom ci nekk bu ko ñëwee te ñëwaatoon ba nga ne ko yor loo fiy wut mais koo xam ne saa waay <laughs> saa waay mooy dem ci xale bu góor ba te joog moom nga bugg a wax ne xale bu góor bee ko biiral moo ko biiral de kenn biiralu ko ku biiral moo biiral yow xam nga li ma wax bu baax ah et puis xale yu góor yi aussi nañu am yërmande jigéen amul doole jigéen ñooy suñu yaay mm. au moins nga ut nga am ambition man di nekk naa sama nekk bi xale bu jigéen mm. dugg suma nekk ma dàq ko mm-hmm. barki arxulaanu karim mm-hmm. koo xam ne mineer la mm. dama toog rek mu ñëw ne ma eh, eh, ko fogo ma ne ma koo kan la comme damaa faral bu ma nekkee su ma nekk nii bëccëg nii damay def suma caleçon te di nelaw law lu seet ante la mu foog rek ma ubbi rek ñu dugg si ma il eh, fu ngeen jógee na ah, mais dañu bëggoon jox na man xaaral ma ñëw tepp bëgguma ko wax sax am na ñëw teeg bëgg leen a duma dama def ba ma ne ko ah di ñëw adama ah, bi woon nga may ñu nangam comme damaa faral xam nga damaa eh? ma ko yor léegi léegi gis ma joxe ko eh? léegi ma jëw nii rek ci yoon bi nii rek am na ko may mille francs mm-hmm. Adama yoroo dara ma jox ko te amaana daa yoruma lu toll noonu yàlla xam na ko dama dem ba ci yaam wax ko ko mais bu ma doon bëgg lu yomb a dama ko naan yooyu lañ war a baax sama diggante kat dama dem ba ci yaam wax ko ko ne ko diw non non yooyu ji ñàkk xam nga fii mi am na ñoo xam ne soxlawuñu sax xaay coow bi lañ bëgg coow baaxul siw ju jàmm mam am na ñoo xam dañ lay topp sax ngir coow ji kese mais yaa xam nag foo ci yem mboor yi moom lu ma leen wax. gars yi saawaay takk leen ku ci amul jabar nga dem takk mais bugg a topp wii topp xale yi bàyyi leen seen yooyu ngeen takk ci xale yi bàyyi digge takk leen ñaar bi ñett suñ mag yi baax dañu am ñaari jabar bi ñetti jabar ci kaw bu ngeen ko mënee ku mën benn yemal ci benn mbër yi dem takki nañ dem takki bàyyi affaire rek eh. nañ bàyyi ci nekk rek yow xam nga li ma wax ma te yow nga fexe am jàkkaaru mbor laa la bëgg a wutal Fadim bàyyi say ngay wax dégg man man xale laa te man exemple tollu ma ci am jëkkër te kenn bëggu ma kenn bëggu ma. lu tax kenn bëgg la yow nga rafet jonga ma nga ne kenn bëgg la sa waay yi bëgg nañ la ba bëggee ma utal la gis naa mbor bu sérieux. non non garaaw man bëggu non jëkkëru mbor non pour l'instant bëggoo ko. non bu dee sax bëgguma jëkkër. Ah, nga bëgg a toog daal di nekk fii di jànqatu rek di jaay affaire yooyu. Ah, man na xoolal nag bu ma kii de. kii wu la kat saa yaa ngi nii teg ba mu baax nga bëgg naan ne du ma kii naan bàyyi sa yooyu yooyu nga war a baax yow xam nga li ma bu baax kii na bàyyi loolu amoo ko be. non non. Xaadim saa waay dëgg amoo ko. Adama man maa la intro doomu Adama l'émission tire à sa fin. ah ok jeexal waaw beneen bi mooy ah. ah. Euh, gis nañ rey yi dafa bari. rey bari na trop boo ko bëgg mooy uppo alal da ngay liggéey boo amul nga leb boo amee fay mais gars yi dañoo bëgg amee alal noo xam ne amul fenn da ngay dem ci xaw ma kan ngay gisanteel mu wax la ne boo defee ni boo fexe am boppu nit nangam ak nangam boppu nit di alalu yàlla nga bëgg ko alaloo yooyu lañ war a baax nañu liggéey ku ci amul liggéey nga dem ut liggéey ku am soxla boo xam nga ñëw ci ci waati ma leb ko boo amee fay nar ko def ko dala newu ci mais gars yi dañoo bëgg amee alal dara wuural la ko nag bugg amee alal noo xam ne tegawul fenn loolu kese moo indi rey yi leneen ko parce que rey nit pour yooyu ko da nga gis ku fi ku togg nit gisoo ko mais dakk bopp nit yóbbu ko ut ay baaraam yooyu nañ ko ba nañu liggéey comme yàllaa la wàcc yàlla bu la wàccee daf la wàcce ak yaramu nen nit yee la for sax am lu ñu def ci yow ba ñu mën laa gis sa waay te nga def ndànka loo nga war a am nga am ko rek bu la fi yàlla jëlee nga xam ne yàlla jëlee na fi parce que fii nag kenn du fi nekk ba àla yoomi diin fan yii Adama am na benn xale boo xamante ni cinq ans la papay jiitleem moo egg ci kawam loolu information bi yëg nga ko. loolu yooyu comme li ma la wax nii rek gis nga am na ñoo xam bi daa bari ay farante gis am na ñoo xam ne dañ ko bugg a amee alal naan xale boo amagul xamagul góor na ma yàlla baal ci li laay wax boo defee nii nga ne non dama war am million comme ñëpp. parce que daan nga ànd ak Pape Samba wala Pape Samba sax maa ngi koy nuyu. suma xarit Pape Samba sax maa ngi koy nuyu président waaye mi déglu ma la yooyu yéene ñaar moo ci am dafa am ñoo xam ne dañoo feebar am na ñoo xam dañ ko wutee alal li ma la wax nii mënoo ko ci dindi man du ma waxantu ñaar yi rek moo am am na ñoo xam ne dañoo feebar am na ñoo xam ne dañ ko utee alal ut nga fenn foo ko mën a ut mënoo ko am ngay noo xaaral yooyu nañ ko ba nañu gëm yala fii nii mënoo fi am lu la yàlla mayul mun nekk may nuyu Souleymane Dioral bu baax di nuyu Tamsir di nuyu si Sidi di nuyu euh, Moïse Sarr di nuyu sama xarit euh, directeur cabinet Moïse Sarr Ardo di nuyu Tamsir Faye di leen nuyu ñoom ndax ñoon gis nga boo gisee ma leen nuyu saa waay dëkk bi nag dafa mité te gis nga xam kañ laa gis am combat. da ngay dóor ah? sax dañuy mosle te mosle boobu moo ñu yor ñooñu buñ nekk noonu lambaay ñaaw ah. ñooñu. dañ nekk ay nit yu baax yoo xam ne dañoo nawle woo di nuyu Pape Samba président taa bi jeex na mais yow doo bu may wax euh, bu may wax rek nga ne damay door doo yàgg naa di waxtu waxuma taa bi jeex na sa yooyu maa ngi commencé wax sumay nit yu baax. si yow yaa ngi wax Adama nag. tey di nuyu di nuyu nag directeur numérique bu baax a baax a baax xam na man xam na yaayam xam na di nuyu lay ti njaay Wali Albert. di nuyu waa marché Grand Yoff su ma ko gis naa nu ñu ciy def di nuyu waa Grand Yoff meeru Grand di ñaanal xalifa mi nga xam ne yàlla def na bàyyi nañ ko ci jàmm yàlla na ko yala may lu mu bëggu ndax nag ñun bu ñu ñëwee ba léegi Grand lañ nekk di nuyu Angèle Fall xaar caw fàttewuma kenn ku ma fàtte nag nga xam ne xëy na su xel moo toll noonu ñoom baaba fay yaraax ñoom Abdou Sall fàttewuma leen restaurant mère ndeytin di nuyu jabaru Modou nuyu suma jabar nag sumay jabar waa kër gi yëpp ak sumay jabaru mag fàttewuma kenn di nuyu suma jéeri amisar ma kenn képp koo xam ne yaa ngi def ci man lu baax ku ma limul sa tur nga jéegal ma xam ne xëy na yoruma les ci binduma te xal xel day fatu Ablaye Ndour daal mënuma ko fàtte Adama Ndour wu kenn li may wax nii nag bu ci dagal benn parce que noonu dañ nekk sumay nit yu baax yoo xam ne di ñaanal suma bajan nag yaay ñoom layti ak doomam yëpp di ko ñaanal yal na ko yàlla yërëm te xare ko arjana di ñaanal sama papa nag yal na fa pa duudu mag lay ñaanal bu baax fi ñu feetoo yal na fa yàlla dimbale bu baax a baax nga yàgg fi ci kanam a kanam suñ papa duudu Diouf Sambirij gaawoon lool ba ñu ko doon wax Sambirij di nuyu Demba Ngom maam sama boo ko kom fàttewuma kenn fàttewuma kenn ku ma fàtte rek nga xam ne noonu la mais fàttewuma kenn maa ngi jéeglu bu baax a baax a baax ma Waly Ndour fàttewuma kenn di la nuyu naaw nag fi nga teg sa tànk sa foofu la yaa ngi liggéey boo nekkuloon di liggéey waxuma da nga bàyyi fii dem fale mais keroog tas naag Boucar rek li TV dama koy wax ma ne pourtant dama amu jot mais ma dama bëgg nga def interview ak moom mu ne xale bu baax a ngi noonu boo gisee ku tane na nga tee nekk fii di taamu moom loolu ba ko waaye xam naa li ma la bu baax bu nekk fii di kii boo gisee ku tane xaaral ma wax la boo gisee ku tane ku am yërmande bu dul jàkkaar ju am xaalis. jëkkër ju am xaalis daf lay sonal rek amaana mën nga ut naan xaalis nga ci ut te amoo jëm boo ceker kër di la doo am nelaw ju neex doo am café gu neex mais boo ko xam tane na xam na soxla am na ci yow yërmande doo fa taw yooyu ngay def mais bu nga nekk fi di taamu yal na la yamar jëkkër ju baax jëkkër joo xam ne am na teranga addu ndax benn paa na ma ñaanal nag yal na ngeen wer yal na ngeen am jàmm yal na ngeen am xaalis waaye xaalis daa bokk ci teranga doomu aadama xaay nag kenn bañu ko ne na bàyyi gars yi bàyyi loolu nag bu ko amee noo ne nag tegawul fen juufa ñoo ko bàyyi nag gars yi bàyyi xaar yàlla nañ yëngatu ku dul yëngatu nag waxuma ci moom dara di nuyu ñëpp nag fàttewuma kenn Ablaye job beneen naa nuyu di nuyu góor production di nuyu waa staff sum yëpp mbayang di nuyu siñ bas nga xam ne mooy jëkkëru mbayang luum gis nga dal yu rafet yi keroog neen def may moom a ko jox ko xam ne dal yi dafa seer dafa seer de moo ko jël keroog ne ko comme mbayang luum suma doom bu ñu jaay la moo ma ko suumil waaye doo jël dal yi gis nga xanaa yi dafa am fen ah xam nga man nag nom ma dara may mbaru askan bi vraiment maa ngi ñaanal nepp nag ma kenn mhm. kontaan naa trop suma kol sedd na merci beaucoup euh, Basirou wax dëgg yàlla tey ku gis émission bi wax dëgg yàlla reetaan naa ba sonn Adama Diouf mburu askan wi mu nekk koo xamante ne ku baax nekk suma xarit nekk suma lépp ndax su ma ko woowee téléphone ko Adama rek mu ne ma ñëwal di ko remercier bu baax ah, ah, ah. ah di ko remercier bu baax a baax a baax mais tamit yow Basirou ma tàyyi di ko yow tamit maa ngi lay remercier a baax a baax ndax nee naa da nga disponible fu ma ne la fu ma ne la acca nga ne ma acca kontaan naa ci yow bu baax a baax internautes yi yéena ko doon laaj mi ngi nii aadama Diouf mbëru askan wi j'espère que nag li ñu leen indil neex na leen parce que ni may wax rek lépp loo leen lépp lu leen di neex si la waaw sam papa jooju Malick Thiandoum waa di nuyu ñëpp ñëpp ñëpp cat ba cat ñëpp ñoo xam te ñi ngi ciy jàpp ñi ngi leen di remercier bu baax a baax a baax parce que mënuñoo lim te du ku lim ku lim juum noonu la ñuy def wasaare lamb li ma koy waxee rek wasaare TV Fatima dañuy xool ñi nga xamante ni moom ngeen bëgg ñi ngeen soxla rek la ñuy wut Adama Diouf lañ leen indil incha allah suba bas ñu dem seeti ndaanaan boo xamante ni dem seeti champion boo xamante ni yéen a koy wër te am na lu mu war a wax ak yéen nii rek la ñuy defanteeg yéen li may wax rek commencé gu ñu dañuy fo mais képp léegi yow man dama bas li ma jaaxal mooy ku wax ne la wuti jëkkër li leen di wax rek am na loo xamante nii waaw dafa jotagul rek di waxaa ne ma gaa yëpp ñaanal ah naan leen rek garaaw ma xaalis laaju ma bi nag dafa teel wax dëgg yàlla dafa teel nan baa bés kanam bas yow ne <laughs> Adama Diouf nee na teel a dee rek bon naan leen daal di remercier gaa yëpp yëpp cat ba cat Basiru yow du ma la wax dara parce que instant bi yow xeeri may sànni dafa mel dafa neex mais li ma la xamal yëpp bis boo ko waxee rek mooy loolu nekk leen ci jàmm ñu dem seet waa benn champion ah. baabu sama patron maa ngi koy nuyu bu baax a baax la jantal ah PDG nee naa leen wasaare ah mel man maa ci am PDG boo xamante ni bu ma ko kenn ñaan instant bi nag damay indi photo am commencé ko tas di wax gars yi bu commencé rang nañ nañ ñëw ci man pour ma wax leen non pour baabu laa ko ma pour man de <laughs> gars yu bëgg a rang ci baabu instant bi naa indil photoom waaw non non madame madame laa far naan ko maa ngi koy nuyuwaat bu baax a baax mais sama PDG dafa jantal ah après bu ñu demee ci beneen daanaan bi dinaa leen indil photo yi ngeer xool tànn ci bu leen neex maay maye aco bas kontaan ci yow